xam ngeen mbirum affaire bi leerul xam ngeen na leerul ñoom xam nañ na leerul dinañ ko leeral dinañ ko leeral ba mu leer xam ngeen yeneen problème yi fi am yépp gis ngeen ko onance beeg yépp ñu koy nëpp nëppal ñoom ci seen bopp ñuy wër plateau yi di ko défendre suñu toogee dinañ ko leeral su amee majorité assemblée nationale dinañ ko leeral lépp loo xam ne mu ngi jëm ci politique d'évaluation des politiques des des politiques publiques lépp lo xamante mu ngi jëf ci vote loi nan lañu wara voter ñi voté fi xam ngeen am ngeen am nañu full ak fayda buy tax lépp luy wara a nekk tegu si yoon biir assemblée nationale ñu teg ko ci yoon. donc coalition sàmm sa cadre ñooñu mu dajale ñëpp xam nañu ne Sénégal yëpp xam nañ ne engagement yi ñu jël suñu déggee assemblée nationale dinañ ko respecter sàmm sa cadre tamit li jëm ci proposition de loi.

fii may wax ak yéen kenn xamul budget bi nan la demee mu ngi am une nébuleuse budgétaire kenn xamul nan la ñuy lebee